maanaam li ngay liggéey ci dëkk bi au kon ñu teel ko wax léegi dañu lay bàyyi ba nga dem ñu naan pourtant Ndoye Bane nii la meloon te pourtant li ngay xëy liggéey ci dëkk bi kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. barke alxuraan dama nga ci jiitu. ci réew parce que xam nga déjà sa kàddu fi mu àgg sama kàddu fa àgg te déjà lu am njëriñ ngay wax. Mm-hmm. lu baax rek ngay dox. man waxuma liggéey mais li ngay dox ci réew mi. Mhm. man su soo paree sa kii tout le sama benn xatas man sa li muy def dañ koy waxtaanee suba ba ngoon man ak moom. alkaana mhm. yal na la yàlla may gudd fan li nga bëgg yaa ko xam. amiin yal na la ko yàlla defal ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin amiin amiin amiin euh, nga tax a daw nii. loolu dong tax a a déplacé ñëw ci yow. xam nga def lu baax dafa dafa dafa yóbbul te yow li ngay def maanaam daal man daal mënu ma ma ko wax daal ah mais Sénégal li ci dëkk bi nag di bal ballu di nangam nangam te pourtant li ngay réas li ngay def mënul def genn wàll nga. Ah, man day wax dëgg yàlla. waaw amoon naa jom mais ginaaw yàlla yonent bi jom ji ma gën a amaat yaa tax. maa ngi jom lu bare du moyt lu bare ginnaaw yàlla yonent ak sama ñaari waajur yow yaa billaay wallaay yàlla na la jàmm ji ngay ñaan yàlla nañ ci jiitu amiin amiin amiin ci barke Mouhamed yaag Alaaji Assane Gueye yal yàlla na leen yàlla defal jàmm ndaw lu leen topp ndaw lu leen diglu waaw dina dina dina dem mm-hmm. te loolu moom man mën naa ko kitaabu kitaabu ko kitaabu sama moroom ku leen diglu bàyyi leen xel dina dem mm-hmm. jërëjëf kontaan nañu di la ñaanal gudd fan ak wér yal na nga gudd fan yàlla na nga dem bay raam bay raam di raam di raam di raam di dem jërëjëf ci barke Mouhamed sallallahu alayhi wa yal yàlla nga gudd fan ndooyu yaa moom takki yàlla nga gudd fan. waaw yàlla nga gudd fan. amiin bi sa taxi la. waaw ok d'accord nga gudd fan. jërëjëf sant rek. yow Macky Sall dana wutal wutal wutal salaire spécial. parce que mag liggéey loolu Macky Sall ngay liggéeyal. daa ñun dañuy sant. parce que li ngay li ngay ñaax seen yi. Ah. li ngay def ci askan yi ak kër yi ngay travaillé loolu liggéey loolu ñun Macky ngay liggéeyal. Hmm. Ah, bëgg. mais bu la neexoon yaa ngi liggéey fii am sa salaire bu la neexoon yem ca maanaam moo liggéey tàggat dem ñibbi mais defoo ko xam nga xam nga daam lu ñëw sunu. mais liggéey bi lépp baa ngi ko ci rajo bi. xam nga xam am réew. dañ waaj naan soo am réew soo ci nekkee da ngaa war a bokk ca wayo ñun ci loolu lañ nekk. mais ñi ko xam. dañuy jéem am njariñ ci lu baax. yow xëccoo jëme sa bopp xam am na ñoo xam dañuy xëcc jëme sa bopp wut tur wut daraja. Mm-hmm. ngale ngale yow yow nekkoo ci loolu. Mm-hmm. yow yaa ngi fexe ba doomu aadama yi dundee doomu aadama yi nekk jàmm teg ci condition yu baax. Mm-hmm. ba mu jaral la ci lu ne. nit ñi bëgguñu ku baax comme ni nga koy waxee tout le temps ba nag pourtant li liggéey ci àdduna téeméeri nit a ngi ci dëkk ay ministres yoo xam ne liggéey ñu gën wàll boo ñëw tey boo nekkoon ba jóg ba dem ñaan pourtant ndoy baara nga ne pourtant fii a góorgóorlu am njariñ rek jii nit moom nit kuy dund foo jaar nit ñi critiqué la tey jii xoolal man maa gën a yées si réew mi sëriñ saa ngi fi di def lu ne. man day lu waay di wax Ndoye Bane. waaw na ko wax sama gànnaaw mais bu ko wax sama kanam. alkaati ñaat. déedéet waay barke alxuraan lu lay a di wax Alaaji Asan Gueye. waaw na ko wax sama ginnaaw. mais sama kanam. waaw barke alxuraan laa la waaw wuyu jarul jarul korosee. xoolal jarul la ma lu ko raw lu ma waay wax ci lu bon ba yàlla. bàyyi ko seetaan ko fii su koy wax da koy wax ña nga xam amul nit ñi benn njëriñ ne ci rajo di ngal ngal waxuñu am njëriñ waxuñu am sens naka dem wax ak ñooñu mais boo xam askan nekk fi nekk man xam nga mosuma defal dara man man mosuma wax sama problème même maa la gis li man mi c'est la première fois ma si teg man mi ngi wax mais dama lay diglu tout le temps tout le temps man dama bëgg man dama bëgg ku baax comme ni ko àla sa gé di wax man dama bëgg man sooy def lu baax dama lay fii pour loolu rek moo du leneen soxlu ma dara du leneen du dara li ngay def moo moo sedd sama xol man su ma xëy diglu ma du ma nekk en tout cas jàmm ji man li ma man ko waxat encore jàmm ji ngay ñaanal nit ñi yàlla nga ci jiitu ci barke Muhammad yàlla nga ci jiitu yàlla nga dem ba nekk ay maami maami maamati maamati maamati te Macky Sall nag. waaw a tay koy wuy yegg si kawam. mais bu boobaa kàddoom rek bu boobaa bu ñu toogee diiru kàddoom rek kàddoom rek dañuy teg ci yoon ñun xëy na jëloon nañ beneen yoon ay kàddoom ak ak kàddu Alaaji Gey Alaaji Assane Gey moo ñu jubbanti. waaw waaw waaw noonu la. ah mais ndaw li muy wax dañ leen liggéey tëdd fii. ba 10 nga yeewu taal sa bar ataay du métier moom mii bu ko neexoo dem defi leneen mais li muy def ci réew mi kenn xamu nu fu ba dof ba waxat na dof ba waxat na dof ba waxat na ñoo ñoo ñoo yenu seen i ba xamuñu fi ñu taxaw <laughs> billahi wallahi taala man su dof comme dof la yow lay mel yàlla mel ni yow man a barke moo xam ne jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf jaajëf alhamdulilah merci beaucoup